lépp nag la def ca club boobu waaye la ñu yaakaaroon ci moom gisuñu ko ba tax na dagg nañu contrat ba kon jamono ji Moussa Wagué agent libre la amul club moom nag football amoon na lool yaakaar ci moom ba taxoon sax club bu mag bii di Barcelone jëndoon ko waaye jamono ji nag mi ngi ci ay jafe-jafe kon nañu ko ñaanal mu am club balaa yàgg ndax xale la dara jombagu ko muy Moussa wage ñu jugee ci Moussa wage jël doomu Maroc bii di Hakim Ziyech mi nga xam ne ma nga ca coupe du monde ba di fa def ay jaloore bu ñu sukkandikoo ci sport nag Barcelone amoon na wërsëg bu yaatu ngir mu nekk joueuram li ko waral moo di janvier 2022 waa Chelsea woowoon nañu waa Barcelone ne leen kaay leen ma abal leen Hakim Ziyech mu ànd ak option d'achat boo xam ne su saison bi jeexee su leen neexee ngeen fay ko su doxalut foofu ngeen bàyyi ko mu dellu siwaat fii waaye Barcelone moo bañoon loolu waaye waa si ubbi woon nañu buntu yi ci jamono jooju nag la waa Barcelone dem ca Wolverhampton abbu fa Adama Traoré mu ànd ak option d'achat boo xam ne bu doxee ñu jënd ko bu doxul ñu bàyyi ko Adama Traoré moomee dañ ko mujj bàyyi moom ak kan Ferran Torres mi nga xam ne ca Manchester City la nekkoon waaye Ferran Torres moom Barcelone àbb na ko te mujj na ko jënd waaye amoon nañu wërsëg bu yaatu ngir am Hakim Ziyech ndax waa Chelsea woowoon nañ leen wax leen ne leen kaay leen ñu abal leen ko su doxee ngeen jënd ko su doxul ngeen bàyyi ko mu dellu si fii xibaar boobu sport moo ko xamle. ñu jugee ci Hakim Ziyech ak waa Barcelone dem ca waa Séville fekk fa seen milieu de terrain bii di ko bu ñu sukkandikoo ci Marca yéene Isco mën naa jóge ci Séville ci weeru janvier bii ñu dëgmal li ko waral moo di moom ak Monsi jubawuñu Monsi nag mooy directeur sportif bu Séville moom ak isko seen diggante rataxul dara te waxtaan bi ñu mujjee waxtaan nag jubawuñu te li ko isko xamal moo di yow su ma ñëwee ci club bi taxoo Julian Lopetegui mi doon tàggat club bi moo tax ma ñëw ci club bi te gi nag nekkatu fa kon soo moytuwul isko dina jóge Séville ci weeru janvier bii ñu dëgmal ndax moom ak Monsi mi nga xam ne mooy directeur sportif bu Séville du ñu jaaroo taal xibaar boobu Marca yéenekaay moo ko xamle. ñu jógee ci waa Séville ak isko dem ca waa Liverpool bu ñu sukkandikoo ci rajo Colombie. Luis Diaz mi nga xam ne dafa amoon ligamant ñu opéré ko dinañu ko opéré waat ndax blessure ba wérégul xibaar boobu rajo Colombie moo ko xam xamle suñu ko opéré nag bu ñu yeggee ci weeru mars lay door a duggaat ci terrain football kon nag match bi war a dox ci diggante Liverpool ak Real de Madrid doomu Colombie bi du ca bokk muy Luis Diaz bu ñu sukkandikoo ci rajo Colombie. ñu jugee ci Luis Diaz dem ca waa Bayern de Munich mi nga xam ne seen gardien numéro un bi dafa blessé te saison wam jeex na muy Manuel Neuer jamono ji nag club boobu li ñu bëgg moo di. wut beneen góol mu kujjee ak Ulreich mi nga xam ne jamono ji moo fa nekk ku mën rek doxal. li ñu njëkk a xalaat nag moo di gone gii ñu able ca AS Monaco ndax nekkoon na foofee ca Bayern de Munich mu tudd Nobel li ñu bëgg moo di waxtaan ak moom su gone gi nangoo ñëw ñu yóbbu ko foofee mu kujje ak Ulreich su fekkee gone gi nanguwul ñëw góolu Croatie bii di si moom lañ bëgg a jëli moom nag ma ngay góolu ca Dinamo Zagreb waaye ci coupe di monde bi mi ngi doxal ak réewam jamono jii ci loolu la waa Bayern de Munich di liggéey bu ñu sukkandikoo ci Nico Sira ñu jugee ci Nico Sira waaye bayeenu de minute googee duñu ko génnagum bu ñu sukkandikoo ci foot mercato défenseuru Croatie bi di Vardiol waa Bayern de Munich ñoo ngi koy bàyyi xel te Bayern de Munich nag def nañu réunion ngir càmbar ay mbiram li ñu bëgg moo di yóbbu ko foofee mu jàppale ña ca défense ba waaye bëgg googee Bayern de Munich bëgg Vardiol wéetu ca ndax Manchester City Manchester United Real de Madrid ba ci Chelsea dañoo bëgg doomu Croatie bii di Vardiol mu nekk défenseur bu mën la muy def xibaar boobu foot mercato moo ko xamle ñu jugee ci ci var jol jël doomu Portugal bi di Pedro Gonçalves bu ñu sukkandikoo ci record bu Portugal club yu mag dañu ko bëgg club yooye bokk na ci Manchester United Juve Liverpool Barcelone ak yeneen club yu mag dañoo bëgg doomu Portugal bii nga xam ne milieu de terrain bu mën la muy def la muy Pedro Gonçalves nekk ku football am ci moom yaakaar jamono ji ma ngay doxal ca Sporting record bu Portugal nee na